jëfeegoo njàng li mi jëm ci wàllu njubte waaye ñam wu dëgër ñi mat a ko yelloo maanaam ñi jëfandikoo seen xel ngir ràññee lu baax ak lu bon